problème mu indone daal lañ am problème mu ndox moom lañ am. jafe-jafe ndox bi dëgg dëgg dëgg mooy napp bi fi nekk napp bi fi nekk ñun dañuy dem ba nawet bi jeex da doon tàggoog ndox waxuma la fond sax mais ab xer sax mënuñu ko a ci koñ bi xer problème wanag am nañ ko problème mu dëkkuwaay am nañ ko problème mu génn suñu kër yi am nañ ko suñu am yi am amuñu leen def te ñoo nag ñoom ñoo dëkk ci ndox mi. li ñu sàkku mu ñun suñu ndimbal benn dong la ñu ñun problème mu tàggoog ndox ñun bu ñu demoon ba tàgguñoo ndox dong moom jàpp na ne moom suñu jafe-jafe faju na loolu daal moo suñu jafe-jafe problème mu napp bi moo suñu problème. sant yaa ngi bëri ñi defar ci gis. waaw moom maanaam da di adduna moom kenn ku nekk sa sa xel rek te kenn ko nekk sa tolluwaay. waaye fi toll nii moom jafe-jafe bi nga a njëkk a defar ma jàpp naa ne mooy yoon ba ñu mën a jàll kenn ba ñu bari ci kër yi amuñu fu jaar bi may ñëw yaa ngi seen waa ci kër gi laa jóge jàkka ja jàkka ja moom da jàkka ja waaye duñ fa julli sax fi mu toll nii dañ koy tëj ndax mënee su faa jaar ba julli biir jàkka ja daa am ndox biir jàkka ja waxuma la buntu bi de biir jàkka ja fa ñu fa ñu war a defee sàpp daa am ndox li ñuy sàkk ñu dimbale daal mooy ku ñu mën a dimbale ba saafaraal ndox mi loolu moo gën a nekk suñu jafe-jafe ba maam ak toqi def soo ñun dañoo dee wett leen def wett leen def autorité yi jur sax ñu tudd seen tur ku ne sa bopp nga fi nekkal jafe-jafe bi kay moom sonn lool ndox mi daal moom moo ñu ëpp doole ndox mi daal moo ñu nangu suñu kër nangu kër gi ñu ngi nii daal toog ñun mag ñi kër gi nag xale yi moom kii nekkatu fi moom ñëpp ñëpp joxe nañ leen am na ñoo xam ne sax dem nañ ba Ndakaaru ndax fi mën a toofee wàcc gone benn ah mi ngi nii kay gis nga nii nga ñu fekk ñu toog nii lekkuñu naanuñu togguñu defuñu dara koñ bi daal moom moo ñu yor ak lekk moom. waaw koñ bi daal ñooy tibb bool indi fii ñu toog nii di wax a yow nag sax moom bool duggagu fi sax far nag ñu ngi nii toog daal moom jaaxle lool nag. problème bi ci ndox mi. kay moom xanaa dimbali ñu ñun daal nañu nañu defaral fi moom ab dund moom soxla wuñ ko moom lekk ak naan ndax foo dugg danga lekk foo dugg danga naan waaw foo dugg lekk foo dugg naan bool sax boo ko yoroon dugg ci kër gi boo yalwaanee ñu sarax la nga lekk. jafe-jafe la lool kay romb na jafe-jafe lool kay na jafe-jafe lool metti na de metti na moom ba fu metti dale ba fu mu yem moom def na ko. xanaa lii ñuy dund nii ndox mi ne ci biir ndox mi xooju nii toog guddi ak bëccëg yaa ngi ak yooyu bari yi mu ne guddi dañuy suñu sumi suñu yére yi sax di bàccatu di bàccatu ndax yooyu bari lekku nu naanu nu am fu toog ba toog fu ñuy toog ba togg. Nuuru Daara ni moom bëri ah Nuuru ni kay fi ne ne nii di wax ak yow de. Hmm. waaw Nuuru da ah man kay damaa bett nag wax dëgg yàlla am nag sax nag moom wóor na yàlla nag ndax ba ma koy def dama noon naa ko def sëñ Muntaxa gis ko. man ñoo jàppale man moom laa ci jublu woon waaw man damaa bëggoon bu pare rek ñu ko sëñ Muntaxa mu déglu ko waaw. waaw waaw xam ne. waaw moo xam ne daal nooru daara yi moom fi mu ne nii sonn na ku ko jàppale la bëgg ku ko dimbali la bëgg waaw suñ ñu mënoon a dimbali ci kër gi daal ñu am ay camion xeer am ay camion suuf ba ndox mu dootu dugg ci néeg bi bu buñ bëggatee togg sax mën a am fu ñu toog togg mu baax. waaw waaye bi bis boobu ngeen yeewoo damaa jooy keroog damaa jooy na sama xol dafa tooy ndax yor ay. moom laa la wax keroog damaa jooy ndax yeewu yor ay xale yu tuuti sama biir boobu njëkk maa xale ci biir ndox mi la leen xale di daanu ñii di naan ñii di sangu xam nga loolu moom doy na jaaxle te wër na yàlla noonu lañ doon def xale am na ci ñoo xam ne nii sama ñaari sët yu ndaw yi dañoo naan ci ndox mi ba doyal. ma ànd ñoom di daanu ci ndox mi di jóg ma xëy na suba ba ngoon mënumaa toog jox leen ñu lekk ci laa door a profité na génne leen fii joxe ji leen. dikk nag man ñun ñi nga xam ne ñooy mag ñi fi mu ne bu ñu xëyee ci ndox mi la yeen yendu xooju ba jant so ñu door uti kenn ko ne foo tëdd ndax ndox mënuñ ceeki ndax li gën a miti gën a garaaw yeew mi ñu dëkkal moo metti te dañoo dëkk ak yeew ndax yeew mi guddi gi day jóg di lëmbe kër gi yenn saa yi mu génn barag lu romb bunt bi ndax saako yee tax day romb dugg ci ndox mi day dem ba ca kaw te boo yeewoo doo ko gis xam nga ne loolu fanaan moom moom dëli la moom te du yeew mi du yeew mu ndaw du yeew mu ndaw de yeew mu mag a mag la fële la jóge ca kàmb yéen ñëw fële jóge nag fële dëkk ndox mooma daa bari dafa yàgg nag ñëw tu lool xanaa lool moom moo am nañ tiitaange lool fekkee yàlla dëgg rek la bëgg moom sonn nañ jaaxle nañ tiit nañ lool itam wax dëgg yàlla am mais amuñu pexe ndax fii ñu am amuñu fu ñu aw moo tax ñu toog fii rek bu nëgëni nii nii wóor na Serigne Touba teguñu reer ab reer teguñu ko ñu ngi nii toog yàlla xam na ne toggunu walaay la bu fekkee yàlla dëgg rek la bëgg bu la neexee nga dugg ci kër gi vérifié waañ wi ak néeg yi doo mm, moom fi ne nii moom tollu ñoo togg moom wax dëgg yàlla bu fekkee yàlla dëgg rek la bëgg moom toggunu yëkkunu moom ñu ngi toog waaw waaw. metti na ndax maanaam boo seetee kaw terrasse bi ah, ñeenti fan yii yëpp man menn man maa fi nekk léegi jigéen yi mënuñu fee nekk ndax xam nga ndox mu mel nii xale yi mënuñu fee nekk. waaw dèjà wanag fii ne rek wanag maanaam pour toilette rek fii ne amuñu ko loolu ci jafe-jafe la bokk ah fii man mënuma fee jóg ndax dafa am matériel la fi nekk boo fi jógee njóobeen nii ñëw jaare la gannaaw kon nag il faut damay obligé nekk waaw bagage yi mënuñoo génne leen ndax dafa diis mënoo ko génne ci ndox mi te doo am ko la dimbale ndax ñëpp a yam fii na kër yi yëpp problème boobu lañ am ah te it wax dëgg moom gisaguñ ci daal ndimbalu gannaaw bu sëñ Touba weesoo daal moom te it maanaam dimbalu sëñ Touba dong sax nag lañ ci soxla nag. na ku ah waaw du ma ne amut de ndax ndaamaatu moom dafa yaatu waaye man de ci suñ quartier bii sama kër gi moom wax dëgg gisaguma ko fi waaw ah, gisaguma ko fi de du ma ne nag amul ndax ndaamaatu moom yaatu na. ku nu doon dimbale ku doon dimbale moom ay dëgg la ay ceeb di diwlin nag yooyu comme niñ ko xamee yooyu baax na waaye nag liñ gën a bëgg daal moom assainissement ndaamaatu daal moom lañ bëgg loolu daal mooy li nu gën a sàkku te yaakaar naa képp ku dëkk ndaamaatu tey boo ko ko waxee mooy li nga xam ne moom lay sàkku mooy loolu ndax assainissement képp moo mën a noppal fii. bërëb bërëb la boo waaw faw bërëb la boo xam ne bii moom assainissement rek moo ko mën a defar fii ne defoon nañ fi ay ay ay ay ay ay ay Euh, ñetti at passé yooyu sax baax na moo nuy dimbale waaye nag san pour cent moom ëggaguñ ca ndax léegi tuyau yi lu mu bon bon bu tawee mbedd yi ndox ma tuyau yi mën na ko yóbbu bu ko defee mu des kër yi kër yi da ngay am problème faaw nga pompe wala sapeur ñëw dimbale la wala yu demee noonu. sapeur excès guñ fii ñooñu ñu daan dimbale nag moom wax dëgg yàlla jàmbaar lañ dimbale nañ ba tey moom waaye. ah danoo danu ma koy dundal lu metti ndax maanaam famille bi dañoo séparoo famille bi ñee nga fële man maa ngi fii fii ne nii faaw dañuy xuus indil ma reer ci kër gi <laughs> man mënu maa dem fenn comme ni ma la ko waxee woon sànq rek waaw ah, xam nga euh, feet moom balaa neex njaboot gi dajaloo ah mbégte am foofu foofu la mbégte yi am waaye bu ñee nekkee fee ñee nekk fee moom mbégte amatul foofu waaw euh, waaw loolu itam moom am naa ci problème ndax man man wax dëgg man damay ami gan moom damay am gan yoo xam ne wax dëgg yàlla at mu jot moom fii rek lañ xam ak kii waaye fii moom ren moom bu ko yàlla dogal moom yaakaaruma ne danaa leen fi dalal ndax gan fii moom mënee su fee dalal gan xanaa li may def kay mooy danaa seet geneen kër goo xam ne gu baax lay doon ma yóbbu leen fa a ah, ñu màggale fa waaye fii moom mënuñu fee màggal waaw nuñ la ci mën a dimbale lu mu gën a gaawe rek moom soxla nan ko ndax sonn nañ trop bagage yi moom mi ngi ci biir boo yeexee day yàqu ay armoire ak ay lalak yëpp a ngi ci biir lépp a ngi tëmb ci ndox mi te mënunoo génne dara waaw loolu daal